nuyu waa Ndar yëpp nag xam nga da wootee sama dëkk Zey. bëggoon naa. Mhm. ci sa comme dañuy tëj. Mhm. mardi mhm. li ñu wax trio bi. parce que suñu wax mënuñu wax drogue wax alcoolisme te waxuñu ñetteel ba. mooy prostitution benn bi drogue. ak alcoolisme dina conduire ci prostitution. Mhm. beneen bi prostitution dina tax nit ki drogué. nit ki mhm. alcoolisme jox naa la paquet. tout à dégg ngeen sànq pourtant nag maa ngi doon ne. Mhm. tey falaay laay tëjee. parce que conséquence su drogue ak alcoolisme. dafa metti cause la wala conséquence. ça dépend mun na nekk euh, euh, cause si cas bi. comme mun na nekk conséquence cause si beneen cas yaa ngi koy wax léegi mën na nekk cause. parce que commencé nga prostitué wu. nga mujjee. dem ci alcool ak drogue. wala commencé nga alcool ak drogue mujjee dem ci prostitué wu. parce que amoo xëy na li nga jëndee sa drogue mais gis nga de plus en plus dañu gis ne lii di drogue. lii di euh, alcool dafa dañ ko commencé di associer bu baax a baax ak duma wax sax prostitution ak sexe yëpp ci boppam parce que su ñu jëlee prostitution pour man pàcc la si mun nañ ci jël homosexualité beneen pàcc la parce que lu bëre ci lay jóge que muy lesbienne yeeg yooyu yëpp ci ay naan ba màndi la wala drogué wu ba xamatoo foo nekk ci mbir yu mel noonu lay jóge kon dafa chaîne la. Hmm. boo xamante ne xam nañu fu mu tàmbalee xam nañ na ci alcool. Hmm. ak drogue la commencé. Hmm. mais fa mu egg kenn mënu koo xam parce que yoon yi dafa tracé wu def nii. bu ne mun nag fu mu. maa ngi wax léegi mbirum euh, euh, homosexualité. wax nga mbirum prostitution. mais dee mi ngi ci. kaso. mi ngi ci. dof mi ngi ci. kon dafa di loo xamante ne war nañ ko mën ak et ndax seen piqûre yi. voilà voilà yooyu yëpp. mu mën na ci ne feebar yi voilà sida yeeg yooyu mm. feebar yu bëri mën na mën mën na ci am te sexe bi mm. dafa présent bu baax a baax a baax mm. ci ci ci euh, ci drogue ak alcoolisme ak alcoolisme parce que soo xoolee même la plupart du temps yenn prostituées yi mm-hmm. suñu buggee def li nga xamante ne moom lañu bëgg def def seen liggéey mm. prostitution mm. faudrait que ñu drogué wu mm. que ñu naan alcool loolu déjà gisoon nañ ko ci thème bi ñu fi defoon prostitution pour ñu mën a endosser rigueur liggéey boobu ak ni mu mettee ci ñoom faudrait que ñu am lu ñu jël pour pour mën ko si supporter vas-y alo allo alo salaamaaleykum Kuba ah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam na ngeen def mbaa jàmm ngeen yendoo. ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah donc man maa ngi Abdoulaye. Mhm. damay leb sant lebal nañ la ko. mu donc maa ngi woote mhm. ci États-Unis. Euh, euh, bi. yow rek ñuy déglu. waaw mu donc man euh, problème bu mel nii ci neebar bi. biir Sénégal. dafa war nekk ci ñetti niveau lañ ko war a régler. Mhm. waree def. Mhm. afanaal bu njëkk mooy seytaane parce que seytaane moom mooy làqatu ci ginnaaw lekk. Mhm. seytaane mooy làq ginnaaw naan seytaane mooy làq ginnaaw alal seytaane mooy làq ginnaaw doole ak seytaane mooy làq ginnaaw am donc. moom mooy tax lu bari nit ñi loo xamee lu ñu waru woon benn ci boobu ñaareel bi muy gouvernement bi mhm. gouvernement bi war a teg ay loi yoo xamee ni dafay protéger population bi mhm. parce que nit ñi am na nu ñu leen di yare day tax ñoom ñu servir seen réew ëllëg pour nekk des de bons citoyens donc rôle gouvernement bi ci wàll am bu bu euh, bari pour mën a jéem a def nga xamee nii ay loi lañ pour que nit ñi ñu bañ di yàqu ci domaine alcool wala ci leneen lu bon beneen bi muy kilifa diine yi xam nga bu fekkee ne seytaane dafa bari doole li ëpp ci ñun ñii ñuy jullit bien Sénégal ñeneen ñu dul ay musulman ñoom war nañu am lu ñuy waxtaan ak nit ñi wala taalibe yi pour ñu am lu ñuy ñaan amee nii dafay mën a musal nit ñi ci seytaane seytaane daa bari dool waaw parce que da ngay gis tamit point bi mooy parents yi parents yi de parent bu yar ay doomam def ci la mu war a def waaye bu génnee rek dafay nekk ci nit parce que da koy ëpp doole. donc daal pour man problème buñ koy résoudre benn point kese dañuy jël ay points yu bari. boole ke seen doole pour mën a euh, ñaan yàlla. mën na jàppale problème boobu ñu gis ci wala ñu trouvé. donc loolu la àndoon naa. Euh, lu am solo lu am solo sëñ bi ziyaar nañu la bu baax a baax. d'accord ñu ngi sargal waa États-Unis sa analyse am na solo kontaan nañu lool. parce que da ngeen di teel a yeew da ngeen di teel a yeewu lool di ñu seetaan. waaw jërëjëf euh, euh, waaw waaw léegi léegi bul quitté. waaw bul léegi léegi comme sa ça Lansana jox la ko Lansana del joxe numéro yi bul quitté dégg ah. d'accord dinaa leen woo incha allah. waaw waaw